الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون gannaaw loolu mbokk julit yi doomu aadama bi na xam ne suñu borom yàlla bi muy yónni ay yonentam bokkoon na ci seen mission ñu fàttali fa yàlla jaar ak i jaamam jaamam yooyu séddali koo woon ñoo xam ne dañ koo gëmoon topp ko ak ñoo xam ne dañooy weddi woon séddirlu suñu borom yàlla woon mbugal gëm wàcce woon ca noonam musal gëm musaloon ay jaamam loolu war a yóbbu ab julit muy doon kuy yokk ngëmam ci yàlla di yokk ragalam ci yàlla waaye di yokk wékku gum wékku ci yàlla suñu borom yàlla won nañu ay xeet yu bari yu mu alak waaye bokk na ci loolu mu nañu ma ndax yéen kenn ci yéen yëg na la doxoon te diggante Muusa ak Firawna ba ko suñu borom woowee da ko Firawna day mburu na Muusa demal nga waar ko delloo ko ci yoonu njub loolu it di wane ne suñu borom yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem doomu aadama du yëgg ci mbon ba yàlla subhanahu wa taala seetlu ko rëccitu ko bal fu sa mbon mën a toll suñu borom yàlla mi ngi lay tàllal ay loxo gi nga tuub dellu si moom bi Musa di dikkal Firawun fekk na Firawna mi ngi mbërum ci kaw Égypte jël bani Israil def leen ay jaam di rey seen doom yu góor ya di jël seen doom yu jigéen ya def leen ay jaam ca chantier ya Musa alayhi salaam ñëw waar ko na ko kaay dellu ci sa borom tuub mu baal la mu ne déedéet man may yàlla bi gën a mag ana rabbukumul aala suñu borom yàlla nee ne nii laa ko jàppee la nga xam ne mooy mbugalu adduna ak mbugalu alaxira mu ne nag ay yéen xalaatkat yi xalaat leen ci loolu inna fi zalika la ibratan liman yaxsha ci kenn ku ragal yàlla di xalaat ci loolu bisu ashura boobu gis nañu ne suñu borom yàlla moom la tànnoon daal di ci jox Muusa ndigal alayhi salaam ne ko wool bani Israil ngeen génn Égypte danaa leen dimbali ba ngeen dellu ci seen dëkku maam ca Palestine musal leen ci ay Firawn yàlla defal ko lam ko santoon la lam ko digoon Muusa mucc na ci Firawn ak xeetam xéewal googu ko yàlla def muy def di ci sant yàlla bis boobee ko yàlla musaloon ba mu ñëwaatee Muusa woor ko ngir sant boroomam subhanahu wa taala xeetam daan ko woor su yonent alayhi salaatu wasalaam ñëw Madina fekk yahud yi di woor Ashura mu ne lu tax ngeen di woor bis bi te jël benn mission suñu boroom da koo yaataloon ci muy maslaha ak ahlul kitaab di dëppoo ak ñoom ñu ne ko bis bii kat Moussa ka daan woor ngir sante ko yàlla ngir musal gi ko yàlla musal ci firawn mu ne ñun de ñoo gën a yey ci Moussa ci yéen daa di ne jullit yi woor leen ko loolee booba weeru koor sax ñëwagul yonente bi farataaloon ñu woor ashura bi nga xamee ne weeru koor nekk na farata mu ne léegi nag kum neex woor kum neex na nga bàyyi noonu la ko di woore sallallahu alayhi wa sallam ba ci mujjeelu dundam suñu borom yàlla sant ko na ko mu juuyoog ahlul kitaab yahudi ak nasaraan yi loolu moo tax ba lenn ci sahaaba yi na ko ah ashura bii ñuy woor de dañ koy bokk ak yahudi di ko woor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon ñun day bu déwee ne nañu woor juróom-ñeenteel bi boole ko ak fukkeel bi loolu nag moo nekk jubluwaayam yow mbokku julit mooy nga xam ne les yahudi ak nasaraan yu jaar te mooy jaxase seen diini lu leen neex yokku ca lu leen neex wàññi ca seen doxalin woowu yow da nga koo bañ da nga koo won gannaaw looloo tax ba lépp lu ñuy doxale da ngay safaanoo ak ñoom ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee aw doxalinam amul lenn lu cay dëppoog doxalinu yahud wala nasaraan lépp rek daf koo wutale ak ñoom ndax ñaari xeet lañ ñoo xam ne ñooy almaghdubi alayhim wala dalin ña nga xam ne dañoo am merum yàlla mu yahud ya ak nasaraan yi nga xam ne dañoo doon ñu réer kon mbokk mi ngi noonu mbokk li yonent bi alayhi salaam sahaaba yi laaj nañ ko waaye yu mu yàlla yónni koor gi ñuy woor moom lan moo ñu ciy ñeel mu ne képp koo xam ne woor na bisu ashura day mboole mi bakkaar ya mu amoon ci at bi wees yàlla dana ko bal lépp mbokk loolu ngëneel bu rëy la ci kenn ki képp ko xam lan mooy conséquence bakkaar ci doomu aadama bari na fitna yu dal ci yow bakkaar la bari na say ñaan yu nanguwul bakkaar la bari na xéewal yu yëgsuwul bakkaar la kon baal ga la suñu borom yàlla di baal loolu da ngay gis ne bunt yu rëy lay ubbi ci yow mbokk bis boobu ñuy woor di ko fàttalikoo suñu borom mi ngi dëppoo ci weer woo xam ne nii mooy weeru muharram di sahabatul kiram jëloon def ko muy njëlbeenu ubbilatul islam waaye mu bokk ci weer yi yàlla màggal yonent bi alayhi salaam daan wax ne koor gi gën bu nit di koor mooy koor gi mu woor gannaaw ramadan ay boo xam ne donc koo bi nga woor gannaaw ramadan mooy woor bi nga woor ci weeru tamxarit bi nga xam ne moom la ñuy tuddee muharram loolu itamit moo tax ba war na ci ab julit mu góorgóorlu ji jéem a roy sunna mbokk lan mooy sunna ci ashura ashura bi day la ca yeneen ci bàyyi salaam sunnaal mu wér ci téere yi moo di ne ne ku ko mën na ko woor waaye mbokk gannaaw koor googee am na lu dee ëpp fukki mbir yoo xam ne ay nit rafetlu nañu ko te di ko te def yeneen bi mosu koo def ay saxaabaam mosuñu ko def na nga lelli saywe na nga tus nooru raay bopp jëriñ ziyaare bari ma xam-xam bokk na la ci gën a siiw mooy fexe ba togg reer bu yaa ñeel sa njaboot boo ko defee at mi yépp doo manqué dépense ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii soo demoon tey saalum am nañ fa lu ca waa jolof amul soo demoon njaambur am nañ ca lu ca waa fuuta amul ku nekk la nga rafetlu nga def ko waaye mbokk julit yeneen ci bi alayhi salaam digle woon bàyyee koy saxaabaam mooy bisu ashura nañ ko def bis boo xam ne bisu koor lay doon guddig ashura dénkuñu ca dara surug ashura dénkuñu ca benn façon ñaan yu ñuy dajaloo di ca ñaan wala lu ñuy ñaan par kenn kenn yooyu yépp ay nit doo nga ko rafetlu di ko def waaye amul benn lay bu jóge ci téere bi yàlla bi wala sunna yu nekk bi alayhi salatu wasalaam boo xam ne day saxal loolu ca maa ngi lay bégal ci ne sax ca la yonent bi saxal ak i sahabaam wallahi moo ëpp ay ngëneel lépp loo mën a rafetlu ci diine ji ban lool rek sax moom mooy ngëneel leneen lu dul loolu ay bidaa la ñu bàyyi ci xel bu baax doy loolu la nga xam ne muy sunna ashura di bisu feet di bisu noos comme boo demoon tey jii iran wala iraq wala lenn ci ay dëkk ca chia yu doy waar yooyu ñoom ashura lan lañ koy def ñoom mooy contraire ñuy togg ay cere ka noos ñoom dañ koy def bisu naqarlu di caw seen bopp ay jaas bal di ànd ak seen doom tax di jam seen doom yi deret di walangaan muy benn melokaan bu ñaaw boo xam ne télévision noonu lislaam yi kontaan nañ di ko tasaare ci àdduna bi yépp ñuy wane ne xool leen jullit ñi ñu ngi noonu ñoo xam ne ñu ngi xuus ci deret bu bawoo ci ñoom loolu mbokk ak réer la boo xam ne yàlla leen di mosal tuuti mbugal gim leen nar a mbugal avant ñuy dajeeg moom bu dee tuubuñu loolu nga xam ne tuub nañ ko lan moo ci seen lay mooy Ousseynou day ci Ashura lañ ko rayoon mbokk suñu borom yàlla bàyyi Ousseynou mooy Ali ibn Abi Talib moom it dañ koo rayoon keroog xare Uhud juróom ñaar fukk ci sahabatul kiram bokkoon na ca ñoom Hamza ñoo xam ne ci ahlul bayt lañ bokk ñooñu dañ leen nar a yoon mu tax am na benn bis boo xam ne yonent bi mas na koo jël di ko fàttaliku loolu di ko def bisu naqar loolu mbokk kon amul kon loolu moom ak réer la boo xam ne jàpp naa yegsiwul sunu réew waaye ala kulli xaal nañu xam ne réer mënut a passé loolu gannaaw loolu mbokku julit ku nekk ci ñun heure boo gisee histoire bi war nay bàyyi xel ci ni ah suñu borom yàlla kat fam jaar waa aad jaar faag waa samud firawna mi nga xam ne yoroon na nguur boo xam ni néew na ku ko am gannaawam daanika budul Suleymaan ba pare yàlla jàppe ko ci lii kon man mii kat mënuma te yàlla xamal ne it keneen kuy mbëru ci kaw suuf mënul te yàlla abadan loolu moo tax ba ku nekk ci ñun di war a góorgóorlu da jéem a juboo ak boromam subhanahu wa taala mbokku ñi ngi nekk ci xéewal yu rëy xéewal yoo xam ni safaanoo na ak fa yàlla jële woon bani israil xeetu lu mu nekk ay jaam ñii rendi seeni doom ci seen kanam di yóbbu seeni doom yi jigéen duñ leen gisati amma ñun falilahi alhamd ñi ngi nekk nii nekk ci sunu njaboot yàlla wërsëgal ñu xéewal alal jaa ngi baawaan sunu maam yi amul woon loolu nag nañu xam ne ci yàlla kese la jóge su ko yàlla bëggoon nangu kenn mënu ko téye bu yàlla subhanahu wa taala na munoo jox xéewal kenn mënuñu koo jox moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ne bépp lor bu yàlla wàcce ci yow na doon loolu feebar la ñàkk la ñàkku njaboot la ñàkk sëy la ñàkk jàmm la nee na loolu kenn mënu koo teggi ku dul yàlla bépp xéewal bu yàlla namm mu wàcc ci yow kenn mënu koo téye ku dul yàlla mboolem mbiri jaam yi ci moom lay dellu ci ay ndigalam lay dellu ku ko neex lay jox ku ko neex lay xañ ku ko neex lay xettali ku ko neex lay xatal borom boobu subhanahu wa taala wunuñoo bokkaaleeg moom kenn mboole mi kàttan ci loxoom la nekk suñu borom nag nee na am na ci jaam yi ñoo xam ne am na ñeneen ñuy jël bëgg leen nañu waroon a bëgg yàlla yaakaar leen nañu waroon a yaakaar yàlla waaye ñoom day dañoo réere ni ann al quwata lillahi jamia waaye buñ ko xamul ci àdduna it léegi alaxira ñëw ñu daal di koy xam mbokk julit yàlla rek lay yaakaar ci yàlla rek lay sukkandiku xoolal Muusa alayhi salaam ak bani Israil ñi ngi nii di dem firawna topp ko ak armée boo xam ne matuñu am xëy la nga xam ne nii moom mooy armée firawna Muusa gi gaayam mëntuñu leen dara loolee ñu dem ba sës ca géej ga ñi àndoon ak Moussa ne ah Moussa musiba am na géej gaa ngi nii mënuñu koo xuus firaw naa nga nii di ñëw tey ñun ñépp daan ñu rey Moussa alayhi salaam ne leen déedéet maa ngi ànd ak sama borom sama borom dana ma jubal lu waral loolu moo dina ne yeneen ci yàlla yi alayhim salaam dañoo xamoon ci am yaqiin ci ne kattan lépp ci loxo yàlla subhanahu wa taala la nekk waaye nekkul te la nga xam ne mooy sabab yi nga xam ne yàlla dañoo sant ñu sabab loo ko rek waaye kattan dëgg ci loxo yàlla la nekk Moussa amul woon benn armée benn yatam ba dong la yoroon sunu borom yàlla ne ko dóoral géej gi mu dóor géej gi géej gi daal di jóg ba fukki montagne ndox ak ñaar waa bani Israël nekkoon fukki famille ñaar Moussa ne leen ay ca ñépp dugg ci yoon yoo xam ne yu wow koŋ la daal di ci xuus jàll ba firaw ne yegg seen arméem suñu borom yàlla ci kattanam xiirtal leen ñu dugg ci géej gi ñëw tamit ban demee ba yàlla musal Moussa ak ñoom àndaloon ñépp ne Moussa dooraa seen géej gi montagne ndox yi ñëw labal firawna ak mboolem ñoom àndaloon loolu ci kattanu yàlla jalla wa ala borom bi ne xalaatin mi ngi ci biir ñeen kuy xalaat firawna boobu di Ramsis ba tey boo demoon ci pyramide égypte ya ñay jiite gouvernement bi mën nañ laa ubbil ba ne la kàccoor bi moo daje woon ak Moussa doonte ne ni gannaawam ay junni junni mbooloo jaar nañ fi ñoo xam ne kenn gisatul la nga xam ne mooy seeni jëm lii mbokk suñu borom bu ñu ko waxee mooy bi nga demee ba yaakaar jeex à cent pour cent yaakaar jeex ci zéro amatoo fenn yaakaar nga la way xamal ne des na benn kattan boo xam ne kattan googu moom amul limite abadan ci lépp loo xam ne nii dal na la ci nattu ci lépp loo yaakaar ci mun loo koo jot yaag say mbokk ak say am di jàmm ak say médecin ak say xalaatkat yépp suñ demee ba échec total am xamal ne des na kattan goo xam ne moom amul fu mu commencé amul fu mu yem muy kattanu yàlla jalla waala loolu tax Moussa ne inna ma ya rabbi sa yahdin kenn ñu suñu borom di nettali histoire boo xam ne moom it ci géej la xewe woon ak jaamam bu ñuy wax Yunus nekkoon yonent bi yàlla ci histoire bu gudd dem na soobu ci géej gi benn baleine ñëw daal di koy lanc ca ku xam la nga xam ne mooy baleine bleu yooyu nga xam ne day def ay 30 mètres de long doomu aadama day mel ne kuy màcc ab tàngal ci moom mu daal di koy lanc waaye Yunus sa ci biir jën googe ci biir lëndëmi géej yooyee ca la woo yàlla jël wa ala na ko ay yàlla maa ngi seede ne kenn yowul ñu koy jaamu ku dul yow ay yàlla maa ngi nangu na damaa tooñ loolu la jokkoo ci boromam ngir yàlla xettili ko ci na am la ko dugal ci biiru jën ba mooy tooñ bu mu tooñ la fekk mu nangu na yàlla tooñ naa loolu mi wane ne tuub na tuub bu sell comme sunu bàyyi aadama la moo xam yàlla rabbana zalamna anfusana dañoo tooñ suñu bakkan suñu borom yàlla génne ko ci biiru baleen boobee loolee mbokk mu lay won amul benn xat-xat bu doomu aadama mën a yegg ci kaw suuf loolee ca lali hôpital yi la loolee ci biir prison yi la loolee da ngaa riir ci àll da ngaa tumuranke bitim réew ba mën a yegg fa yum sa yeggoon waaye teewul gis nga suñu borom yàlla naka la ko xettilee lii kon moo tax ba julit bi nga xam ne dafa xellu mooy lii góorgóorlu di jokkoo ak boroomam xolam mu dëppale ko ak boroomam fu mu mën a toll mu wéetal yàlla waaye fu mu mën a toll mu doon koo xam ne dafay tudd yàlla jalla wa ala te xam ni kat suñu borom yàlla moomi bokk na ci loo xame ni nii moom la kontaan ci ab jaamam mooy avant ngay am problème nga dellu ci moom avant ngay am problème nga di ko yaakaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne yaakaar na heure bu amee jafe-jafe yàlla xettili ko balaa jafe-jafe di ñëw ci moom na bari lool lu muy ñaan yàlla na bari lool loo xam ne lii da koy def zikrullah te xam ne mbokk bokk na loo xam ne mooy xett gi doomu aadama bi ci fitna mooy nga wattu la nga xam ne mooy ndigali yàlla yi wattu la nga xam ne mooy tere yàlla yi suñu borom yàlla nee na wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min xaytu la yaxtasib amul kenn koo xam ni da nga ragal sa boroom ci topp ay ndigalam bàyyi ay tereem lu dul yàlla subhanahu wa taala da nga la génn ci xat-xat ya nga xam ne ca nga nekk tey da nga la wërsëgal foo xamee ne nii yow yaakaare woo ko fa woon mbokk suñu borom yàlla nee na mi ngi ànd ak jaamam yi ko ragal mi ngi ànd ak jaamam yooyu nga xam ne nii dañuy rafetal mbokk ki ànd ak yàlla ñàkkatul dara ki nga xam ne ñàkk na yàlla amatul dara loolu moo tax ba nga la waay lépp luy nar a dox seen digganteeg ànd ak yàlla bàyyi leen ko pertement ci nekk buy alal jigéen fal lu mu mën a doon luy dox sa digganteeg yàlla bàyyi ko pertement la waaye lépp loo xam ne da lay jegeel yàlla lu mu metti metti lu mu naqari naqari nga la waay dem te ca xam ne loolu mooy buntu xéewulu àdduna mooy buntu xéewulu alaxira sunu borom yàlla moo yor xéewal yépp moom moo yor caa caa bi lépp loolu moo tax ba mu ngi woo ay jaamam di leen nettali fam jaar ak ña nga xam ne ñoo jiitu woon di leen nettali ña nga xam ne tegoon na ci ñoom ay nattu waaye ba ko soobee keggee na ko foo xam ne kenn fooge ko fa woon loolu moo taxit yow muudu yow faatu jafe-jafe yi nga nekkee sa borom yàlla la ko gën a xam gëmal ne ci yàlla kese la jógee gëmal ne kenn mënu koo tegg ku dul moom ay yow moo di yow faatu li ngay yaakaar bëgg caa jot ci sa loxo yàlla dong jalla wa ala la nekk amul kenn mënu la koo jox bu ko yàlla dogalul ci yow bu yàlla dogalul mu nar a ñëw kenn mënu la koo xañ mbokk heure bu ñuy dundal ashura wékku gu rafet gi la ñu war a fàttali di ñuy wékku koog suñu borom te it nga xam ne yow jullit ay nattu jomb la ay coono jomb la bani israil bi leen yàlla di bàyyeeg firawna ay ati ati ati at muy rendi seen doom ya di leen toroxal boobu ñoom ñoo gënoon ci kaw suuf ñaari yonent ñi ngi nekkoon seen biir muy yonent yàlla Muusa yonent yàlla Haaruna teewul ba leen yàlla yónnee li Firawna gën a taaral ay mbugalam ci ñoom loolu muy wane ne kon dund ay coono bul tax nga jàpp ne yàlla da laa bañ gis kuy dund ay coono bum tax nga ña jàpp ne dafa doy ni yàlla da koo bañ déedéet mbokk jurit suñu borom mooy nattu ay jaamam nu mu ko neexee ngiree bu dee ñu julit ña dana ci yëkkatee seeni daraja baal leen ci seeni bakkaar yëkkati seeni daraja ci biir aljanna lii la julit war a gëm suñu borom yàlla moo xettali woon Muusa ak xeetam ci Firawna yal na yàlla xettali ñu àdduna ak alaxira jamono ji ñu wax ak yéen sunu mbokk julit yu bari tey jii ca Birmanie sunu mbokk julit yu bari tey jii ca Syrie ña nga xam ne ñoo nekk ca Yemen ca Tchétchénie ca Afghanistan lañu xam ne fu ne ci Centrafrique sunu mbokk julit ñu bari ñi ngi foofu jàmm ji ñu yàlla nattoo amuñu ko ñi ngi nekk ci fitna ñii génn nañu seen i kër ñii seen i famille tasaaroo nañu ñii ñàkk nañu seen i liggéey ñii bu ñu añee duñu reer ñii xamatuñu fu ñu jëm ca dara yóbbewu leen ko lu laa ilaha illallah bañ gëm seen borom yàlla nattoo leen ci loolu su ko defee ñun suñu warugar bu dee mënuñoo demee ànd ak ñoom xeex amuñu kàttanu alal buñ leen yóbbul ngalawaay buñ leen fàttee di leen ñaanal fu ñu mën a toll yal na yàlla xettali leen nam xettali woon bani israil te natt yooyu yàlla teg ci ñoom it yal na yàlla subhanahu wa taala musul ñu ci yal na yàlla boole ñu ci jaamam yi ko gëm duñ ko bokkaaleen dara yaakaar ko duñu yaakaar keneen ku dul moom sukkandiku ci moom duñu sukkandiku keneen ku dul moom yal na yàlla yombalal ñu lépp lu ñuy jëriñ àdduna ak alaxira yal na yàlla soril ñu ci lépp lu ñuy lor àdduna ak alaxira yal na yàlla subhanahu wa taala rafetal suñu mucc yal na yàlla كيف سنم جبر إلى صراط المستقيم يلا يلا دجل نكاجنا من بين كوي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين